jërëjëf mbokk mi ala kulli xaal bët bii rek am na ay tegtal yu am solo yu mat a bàyyi xel fekkee bët la boo xam nag day raf jëm ci kaw loolu day tegtalee mbégte boo xam ne di ko yëg bu nag day raf jëm ci suuf loolu naqar la jafe-jafe la amma dënn boo xam ne nag day raf loolu naqaru xol la jafe-jafe la boo xam ne nit ki dana ko dund bala yàgg incha allah mën ngeen jël numéro yi nga xam ne ci lañu envoyé moo xam li ngeen bëgg a laaj 78 443 vingt 27 képp kom loo bëgg a laaj mën nga ko laaj wala nga am leen loo yittewoo rek lu jëm ci émirate wala ndoxu siti wala ko am jafe-jafe ci wàllum say incha allah rabbi mën ngaa war ci numéro yooyu kon bët bi ref am na ay tegtal waaye dënn bi nga xam ne tamit day ref bu ci nekk am na ay tegtal mat a bàyyi xel la dënn bi raf moom xol naqaru xol la moo xam lu paase wala lu nekk sa kanam bët bi raf nag bu dee ci kaw bànneex la bu dee ci suuf naqar la wala jaaxle wala jafe-jafe incha allah